asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax di leen bëggee di leen joxaat seen wàccuwaay ah di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di yokk abonné yi gars yi di like vidéo yi ah gars yi dee leen like vidéo mais gars yi euh, Fifi drone Fifi drone ñëwaat na mais bii yoon dafa ñëwaat changé habillement bi xam naa ne ci kaw gi la changé quoi mais ci suuf gi moom nawoon fa woon na meloon la melaat. mais man fi fi doroon li ma bëgg a xam mooy lan moo waral nga changé sa habillement ci kaw xam naa ci suuf moom nice mais nee nga dangaa changé daal dama bëgg a xam lan moo waral changement bi quoi. daa am ku def vidéo. léegi kan moo def vidéo bi. suma suma kiiw bu baax les jumeaux la. kan mooy les jumeaux. Ah, yow mag di nga bëgg a wax mag di moo def ah, mag di mooy les jumeaux. Mhm. waaw moom mag di nan la def ba ba convaincre la yow. moom laa xam ne moom moo def vidéo. te lancé wu ma ci ay mots yoo xamante ne ni c'est déplacé si mots yoo xamante ni dafa déplacé wu. waaw léegi moom nan la ko defee ban façon la waxee ak yow ba nga war a dégg li muy wax. dafa wax ak man correctement def vidéo bi correctement ma kontaan si loolu. mais est-ce que nekkul dara la tamit. c'est pas parce que dara la de mais dama cee contente quoi. léegi lu tax nga ci. parce que dafa wax ak man sans sans mot boo xamante ne ni man mun na ma blessé. léegi yow li mu la conseillé nan nga ko gisee ak nan nga ko jëlee. conseil bi. dama deglu wat ko wat ko video bi def ma ay retane conseil yam tamit def ma frappé frappé na ma trop billahi fifi ma wax la sama conseil bu mujj ci yow bo jappé ni doon star moy régler say problème yaa ngi nax sa bop surtout nek fi star au sénégal yaay comme xam xam nga mbir mi lan la bu dé da ngay liggéey gëmal sa li nga nek nga liggéey ñaan yalla génn la ci pour nga génné sa sa sa ci luñu nek yaay comme xam bu féké lool nga bëgg star bul ko ñoddi parce que du jàmm quoi doon star mën nga nekk sur les réseaux bu dee da bëgg a nekk acteur wala nga nekk actrice wala nga nekk waykat mën nga ko def mais y a des trucs yoo xamante ne jarul ñoddi déjà boo ko dee ñoddi doo nekk nit ci bëtu nit ñi di ko xam donc gëmal sa bopp nga liggéey faayit ñafe amal sa bopp dara génn sa yaay ci lu mu nekk bu dee loolu nga bëgg mais ay star laa bëgg doon bu tab bu fekkee moo lay poussé à nga nekk ci internet bi di sexy yi jàpp nii parce que dans ta tête tu yow tant que sexy woo doom ay view doom ay like loolu musiba dong la lay jural yaa ngi comprendre ay saaga la lay jural ak ay xas te loolu dara jaru ko donc bu fekkee tu aimes ta mère comme tu le dis am na loo xamante ni déjà éviter ko maanaam saaga yi nga xamante ni moom lañ lay daggal ci sa turu yaay éviter loolu wax yu ñaaw yi lay wax éviter loolu xale nga dem ko fenn donc moytul internet bi parce que ni nga ko jëlee c'est trop moytu ko nga dem liggéey fayit ñaan yàlla mu mu mu la ci quoi. mais lim la wax mbaa yaa ngi koy bàyyi xel bu baax. waaw maa ngi koy bàyyi xel moo tax temps yëpp ma xamoon raar parce que bëgguma woon fësaan nii. <laughs> non mag di nag kon mag di jàmbar nga mag di jàmbaar nga comme que yow convaincre nga xale bi ba mu ne day changer habillement bi ak dafa ruus mag di gars yi may leen ay kër mag di parce que loolu dafa am solo gis nga YouTube bi nekkul dañuy nekk di reetaan loo waate rek mais message yi jàll dafa am solo comme nag mag di moo la soppi mag di bravo may lay saluer ah. yow dégg naa sax yow nekkul yow yow est-ce que li nga doon wax naan kap xale bu góor bu takk kap rek loolu lay daaneel yaa ngi ci loolu ba léegi. waaw mais tamit du kap bi rek la ñuy wengal de. ah léegi lu des da nga cee yokkaat leneen. am na lu des kay. waa lan moo des. xam nga la moom daaneel. man kay xaw ma ko. nga ma mën a amee man. waaw. ba wengalee sa kap. waaw. pareegu ma nga dóor sa seenu goon. <laughs> seenu goon. ah man de yor naa fi lii lii de laa fi yor xanaa ah, ma def ko nii rek xool xanaa ah, def ko nii ko seenu goon moom xam naa ni eh. léegi yow bii neex na la nice na loolu mooy yëf américain dërël nekkal ah, baax na kon damaa bëgg américain nañu wane seen bopp yow lii nan la nekkee yëfu américain moom ak jaaxal. kon yow su ma la déggee fi mu toll nii il faut ko xale yu góor yi jël seenu bu am gon takk def nii wengal kaba li mooy daaneel fi bi waaw. <laughs> mun daal je suis léegi boo dóorul kab bi takk sa seen seen bu am gon doo américain quoi. waaw. te yow américain nga. loolu mooy daane fi te loolu dafa war a lëmbe dañoo war a wengal kab dóor suñu chaîne gon. waaw oh, yeah very nice very very good. <laughs> léegi yow lan mooy say projet actuellement nii ci lan nga focus quoi. maa ngi gérer sama bopp te en plus. damaa génnee way bu bees di ko. lan way bu bees. waaw mhm. ah, léegi wayal wayal ñu xool. Euh, d'accord man nag sama voix duma ko trafiquer sama voix dama koy way nii si plateau bi ñu gis. non ñun voix no voix normale bi lañ soxla wayal rek yow. xam naa dinañ ma dinañ ma reetaan dinañ ma comédie mais nekk si man la dafa ci au fond de mon cœur. non non yow kenn du la reetaan yow yow waye rek. te sama way bi nag dama ko bëggoon jaay mais comme yow yaa naa way dinaa way tuuti. bul dugg ci yooyu bul jaay wayal ñu xool ba pare duñ jënd jaanu pax de fii bi wayal. <coughs> léegi ñu commencé ah. ayca commencé. ok ci sama sexité laay way nag. web bi il a commencé good morning good morning good morning mala fifi draw yeah mala fifi draw yeah saa su ma toggee tobi, plateau bi nit ñi dañ may coow dama sexy dama sexy man fifi draw man baby girl. dama sexy si man fifi draw dama sexy man la dama sexy ben jour dama sol ay dalu ay tambalan di jego ne ma lan mhm. ma dugu france di jego ba ma dugue france <laughs> dama sexy man fi widro xamna ni man dama sexy jaru ciow jarul wax dama sexy dama sexy ba énervé ba ba duggee France ak tamba line gardien bi ne ma stop madame ma ne ko what mu ne ma tamba line nga sol du dalu France deelul ma ne ko comment ça ma wàcc xool muy no. ma non what the fuck mad dama sexy man Fifi Dro man mi tama sexy sexy laa def man tama sexy sexy sexy sexy dama sexy di ma jóge France aéroport France ma dellu dem aéroport Amérique ba ma jëlee vol bi di jógoo ba ma wàcce aéroport hmm. ne na laa def <laughs> yow sama baat bi neex na wala. non yow yow kay tooñ nga fi yow tooñ nga fi. ah tooñ naa fi ah. fi fi duro léegi yow tàggatool quoi waxal gars yi ne leen ñu abonné ci chaîne bi wax leen ñu abonné. sama gars yi américain laay waxal ak américain yi xam naa ni ay bébé américain ngeen parce que man maay bu mag bi d'accord abone leen. mais doo leen wax ñu dem Instagram ak TikTok abonné foofu tamit. ak Instagram ak TikTok ñu ma bëgg a gis yépp nañ jaar foofu. maa ñëw pour video benn vidéo bu ndaw rek vite fait. yow ya, amati nga jëm vidéo vidéo pour lan. mooy eh, par rapport ak eh, photo bi nga xam ni mo moo moo génn. photo bi yow yaa ko génnee. présenté mes excuses. <laughs> Mollah nga ne yow da ngay da ngay da ngay baalu àq quoi koy baalu àq léegi. ah monsieur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bu la baalee ñun patriote yi baaluñu la. yàlla da laa bind tabarkaal nga mel ni nga mel. jël ay fen rek féete woo ko. te waxal Ousmane Sonko da nga kaa bëgg a tooñ rek wala nga bëgg koo sosal waaye nag man moom kuy xaar may ñëw ci Ousmane Sonko naan dama koy waxal <laughs> jàpp leen ni Mollah mii ah eh, fay nañ ko li muy ma de neen boo leen déggee tam ba jimmi jamono dégg ma nekk ci wax Ousmane di ko songu <laughs> encaissé naa de dagg leen côté VAR ma te du yow yaa ñu waxoon lii. waaw ah, kon yow yow li nga def nii yaa ko tey bul ñu baalu ah. bul ñu baalo bul ñu sonal. lii nag mooy Sénégal da ngay ñëw def sa lu ne weng boo paree taxaw naan damaa juum damay baalo moo laa mënoo wax fii lu nit ñi dégg. te yéen nag Sénégalais yi naa leen wax benn affaire gis ngeen boo yoree kaasu beer mu toj boo ko jéemee naan da nga koy taqalewaat da ngay dagg say loxo bal bale ko sànni ngay def instant bi moo la Morgan mooy kaas bu toj ci biir patriote yi la nekkoon. kaas bi toj na bale leen ko ngeen sànni ji ko na ñëwaat nag dugaat seen moyen yi naan leen ay dañ maa gis naa ko muy expliquer amul benn wax boo xam ne wax bu am buñ mën a téye la naan waa ji def ma woon photo yi léegi bi ma xoolee photo bi ma naan ko fii kat da ak nuróowul ak fii mu won ma ay yow yow sa waay sa waay dangaa daanu dangaa daanu fi mu toll ngaa xalangu comme daanu nga ba sëlamu nag jógal nga xooli beneen yoon nga jaari fa man nag dañ laa jox xaalis ak joxuñu la xaalis loolu ñun suñu yoon nekku si mais moo la demal nga toog fii sa moroom nekku fi ko ñun nekkuñu nekkuñu sa ay golo yoo xam ne da ngay jug à chaque bu la neexee nga ne guy gi la boo xëyee suba ne maa ngi jégal loolu yomb loolu dafa yomb sa waaye man yaakaar xamoon naa ne yàgg-yàgg fii ngay mujjeeg sénégalais yi te nag gars yi nan la excuse nan la baal bàyyi la lii jàll ba xam doo defaat leneen lu ko gën a garaaw sa kanamu ñàkk jom gi nga yor Sonko ku ko songu sànku Sonko wax leen waaye Sonko ku ko songu sànku Sonko ak sa para yow yaa wax loolu ci sa làmmiñ ba sénégalais yëpp di toppandoo baat boobu yow yaa xëyaat tey songu Sonko moo taxit nga sànku jeex na yow yaa doon wax Sonko ku ko songu sànku tey songu nga ko songu nga ko sànku nga bu ñu baalu bu ñu fi indil dara sànku nga moom yow moom moo la dugg nga si saako yi ba pare Gaye, lo koma kontini.